voilà euh, mbokk yi ñu ngi côté ministère de la culture yéen a ngi gis noonu euh, ñi nga xamante ne ni pour l'instant ñu ngi leen di jàpp di leen dugal ci oto yi mais fii mën nañ ne benn xeetu beneen xeetu manifestation moom lañ fi gis mooy booy euh, manifestant yi gis nañ ne léegi ci PNL 200 boo xamante ni ci la ñu nekk donc di yuuxu di wax naan dund bi dafa seer dégg nañ ci quelques sax ay je suis Guy Marius donc loolu ci li foraatu nañ ko si mais ba léegi ñuy jàpp par benn benn dugal cooto yi mais journaliste yi pour l'instant liggéey bi dana xaw a jafe ci ñoom ndax euh, policiers yi dañ leen di repousser dañ leen di dàq dañuy bëgg ñu jóge fii carrément te li nga ne nii moom mooy yombal affaire yi ndax euh, de un gars yi dañu fee bari euh, takk der yi bari nañ fi toog dañuy bëgg euh, barricade ñu ci benn benn benn benn ruq boo xamante ne nii génn fa day daal di jafe moo tax dañuy puus ndànk-ndànk di puus ndànk-ndànk ñuy reculer ak ñoom ba ba ñuy euh, dugal ci benn benn benn benn mbedd boo xamante ne nii pour nga génn fa def li nga bëgg a def day xaw a jafe parce que ñoom li ñu jàpp mooy journaliste yi bokk nañ ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy yokk mbir mi ñoom ñooy woo manifestant yi ndax am na ci ay organes yu bari yoo xamante lañ koy def live la ñu koy def te loolu euh, bu ko ñenn ñi seetaanee ñoom dañoo jàpp ne da leen di inciter à ce que ñu ñëw ci manifestation yi donc loolu mooy euh, moom mooy nga xam ne moom la ñuy repousser journaliste moo tax duñu leen bàyyi ñu dem dañ leen di repousser repousser leen dàq ba ci ginnaaw ba léegi yéen a ngi gis ci image yi ñu ngi di manifestant ñu ngi jàpp ay manifestant di dugal ci oto yi di yóbbu man ana ana ana ana sama ana sama caméraman bi sax ana ana Ousmane ana Ousmane mbaa réer mbaa réer voilà mu ngi noonu euh, gis ngeen loolu moom moo fi am ci euh, Blaise Diagne bi wetu ministère de la culture donc euh, manifestation fii moom dana xaw a jafe parce que comme que ñi nga xam ne ñoo ñëw pour couvrir manifestation yi rek ñoom ñoo nekk ci ay difficulté waxuma la nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo waral mbir mi ñuy ñuy waa collectif ñoo lànk ñi nga xam ne ñoom ñoo woote affaire bi donc ci ay condition yu yu yu méttee méttee la liggéey mais ñoom aussi ci ay conditions yu méttee la ñu nekk donc euh, oto bee dafa dafa dafa dafa niroog oto guy Guy Marius bi nga xam ne ni moom la indi gis ngeen ko noonu donc euh, gars yi ñu ngi xoolal ndaw si ñu ngi aalu ba léegi ñu ngi aalu ba léegi L200 baa ngi noonu dañuy jàpp di dugal di yóbbu donc mënagu fee mënaguñ fee gis. benn benn benn manifestation bu bu bu jar gisuñu fi benn manifestation gisuñu fi benn benn benn benn manifestant boo xamante ne tey euh, mën nañu am na lu muy lu muy lu muy lu muy revendiquer fii ñu bàyyi ko mu def kanam parce que aussi bu ñu fàtte ne marche bi dafa nekk marche boo xamante ni autorisé wuñu ko donc loolu moom moo waral tey dispositif sécuritaire bi nga xamante ni fekk nañ ko fi ñu fekk ko fi parce que bu fekkoon ne marche bu ñu autorisé la danañ ñëw ñu encadré leen ñu def seen marche. waaw. Eh, euh, donc mu ngi noonu. jàppaat kan la jàpp dafa mel ni am na keneen ku ñuy jàpp dafa mel ni am na keneen ku ñuy jàpp la c'est la demoiselle ndaw si la ndaw moom la ñuy jàpp dafa mel ni dafa mel ni si moom la ñuy jàpp voilà mu ngi noonu donc mu ngi noonu gis nga ña nekkoon ca 4-4 ba ci euh, wàcce waat leen ñu ngi noonu di leen yóbbu leen évacuer ci yeneen oto yi ñu ngi noonu di leen évacuer ci yeneen oto yi ñoom ñoom lañ jàppoon sànq nii nag ba dugal leen Mercedes euh, ci kii bi ci euh, L200 bi mais finalement ñu ngi noonu di leen ñu di leen yóbbu euh, donc ana ana ana Ousmane bu mu féete defee ñun dañu góor éthique dañu waxante dëgg mais lépp ko ils ont été arrêtés. mais xanaa na nga bëgg loo. nañ ma yóbbu nit ki da gore nañ ma pour que ñu may jàpp bàyyi. force la sécurité sécurité la ñu wax sécurité te kuñ ci yóbbu seen morom dañ leen di dañ leen di kii dañ leen di topp duñ ko bàyyi mu sedd donc bu ñuy xeex dara ñun on est là yaa ngi dégg donc ñii ce sont nos camarades donc pourquoi ne pas nous laisser nañu bàyyi ñu dem dañ leen jàpp nañu bàyyi léegi pourquoi yow ngay nga ne da ngay ñu ne noo doo dem. mais loolu nekkul lan la léegi lan la. nañ ñu yóbbu nañ ñu yóbbu. d'accord voilà. woon mais gis nañu ne euh, jàpp nañu ñenn ci ñoom mais ñoom dañ leen a bàyyi euh, gis nga dem nañu livrer seen bopp la police mais ba léegi nii dañ leen dañ leen dañ leen a bàyyi ñuy euh, ñuy demal seen ñuy dem seen di di di dox seeni soxla te loolu bokk na ci li nga xamante ni ñoom loolu la ñuy naqarlu parce que li ñu jàpp. mooy euh, normalement war nañ leen a boole ak seen i camarades ndax ñoo bokk lenn li ñuy xeex euh, puisque ñoom ñoo bokk lenn li ñuy xeex nag euh, amul benn raison bu ñu mën a jàppe ñenn ñi bàyyi ñenn ñi mais ba léegi rek ñu ngi taxaw di xaar ba xam ndax dina amaat yeneen manifestant yoo xamante ni danañ ñëw wala situation bi dana dana dana bouger waat en tout cas ñu voilà oto bi ngeen di gis mooy oto Guy Marius Sagna bi muy ñëw nag mu ngi woon ci biir mais sans bii nii gisaatuñu ko loolu rek li muy firndeel mooy peut-être bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom la ñu jàpp pour l'instant ba évacuer leen. Euh, amaguñu ci nag lu leer liñ ci am as tuut rek mooy ci oto bi la nekkoon bi muy ñëw mais gis nañ oto bi di ñibbiwaat te moom euh, nekkul ca biir loolu moo tax ñu daal di ñaaw njort que bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom la ñu yóbbu. Ai jambas. Eh wala wala boobu. Waaw wóor yaa Ah mu ngi noonu am na ñeneen ñu ñu arrêté. Am ñeneen ñu ñu arrêté. Am na ñeneen ñu ñu ñu Am na ñeneen ñu ñu arrêté. Am na ñeneen ñu ñu arrêté gis nga instant bii nii. na ñeneen ñu ñu arrêté. Am na ñeneen ñu ñu arrêté. Am na ñeneen ñu ngi noonu donc euh, gis ngeen dafa am dafa am nag euh, ay ay ay takk der yoo xamante ni dañoo civilu ñooñu pour l'instant euh, ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy ñooy infiltrer mani manifestant yi. Ah, mais dama yaakaar ne Sénégal. waaw Sénégal. Ah, Sénégal. dafa mel ni manifestant dañ leen ko tere. waaw dañ mais amul mais waruñu ko tere. parce que constitution Sénégal daf ne ku am lu la naxari. da ngay yëgle rek da ngay yëgle nga ne dama bëgg a def manifestation ñu encadré la nga def li nga war a def après nga ñibbi mais amul amul leneen man gisoo yoruma arme yoruma dara yoruma xeer yoruma dara sénégalais sénégalais sénégalais la dégg nga xoolal sama caabi oto ngi sama oto nga nale ma gaare waaw mais ñun ay senegale lañ ci dëkk bi lañ dëkk xam du ñu ay bandi ñu ay woyu duñu duñu duñu ñu ay ñu ay trafiquant. mais lan moo la métti ba nga fas yéene parce que parce que dund bi dafa cher moo tax. dama damay xëy di joxe dépense chaque jour. dafa métti moo tax bi ma déggee ñu ne dañuy manifester ma dawal sama oto ñëw gaare sama oto bàyyi sama liggéey ñëw pour ñaxtu. loolu kese la du leneen mais bi euh, wootewuñu violence wootewuñu dara loolu la waaw. Euh, donc taximan bi bu ñu ko gisee mu wàcc di ñaxtu dañuy comprendre. li nga xam ne nii moo ko motivé tey ba mu wàcc ñi xam le rek ne am na ñenn ñoo xamante ne nii ñoom ñoo nekk ci collectif ñoo lànk boobee jàpp nañ leen arrêté nañ leen pour l'instant ñu ngi foofu ci commissariat bu Grand Dakar huit personnes lañ pour le moment Seydina Mamadou Malal Diallo la ak euh, Ahmad jàllo keneen ki ñuy wax Togola ak Mouhamed Gueye ak euh, Bayno ak Jémé Euh, Maam Diarra ak keneen ki nga xamante ni moom mooy Pa Ablaye Touré Pa Ablaye Touré nag bu ñu ko waxee dañuy wax benn étudiant boo xamante ni moom lañ fi euh, dàqoon ay fan yi ñu génn foofee ca université Cheikh Anta Diop nekk ca faculté euh, des sciences juridiques et politiques donc moom bokk na ci huit personnes yi nga xam ne pour l'instant ñu ngi faree ci euh, collectif ñoo lank ba noppi ñu jàpp leen ca commissariat bu Grand Dakar donc euh, loolu la ñu ngi xaaraat ba xam ndax dina am yeneen mouvement ci beneen secteur en tout cas nit ñi ñu ngi wàcc ndànk-ndànk liggéeykat yi moom pour l'instant ñoom ñoo ñëw di manifester comme que waa collectif bi jàpp nañu leen. Euh, yaa ngi gis takk der yi ñoom ñu ngi bougé waat il paraît que dañoo jot benn ordre boo xamante ne nii war nañoo mën a dem ci beneen zone. ñaar beneen côté moom moo tax génn jogandoo nañ. dafa mel ni dañuy bouger dem feneen parce que tey boo xoolee ni nu ni ñu barrigaatee euh, fi nga xamante ni moom mooy place bi ñu waroon a manifester boo gisee niñ ko cercler ak dispositif sécuritaire bi ñu fi teg da ngay xam ne euh, accéder dëgg dëgg dëgg ci place de la nation bi nga xam ne mooy ex place de l'Obélisque ba mën faa def ay manifestation day xaw a jafe loolu moo waral parfois nga gis euh, ñu am benn mouvement bu ndaw gars yi génn takk der yi dem taxu taxuwaat ci beneen barab. yenn yi waaw sama kafe yaa jëf waay yaa jëf mm-hmm. voilà ci rappel nag ci fàttali tey manifestation moo fi waroon am manifestation boo xam ne collectif ñoo lànk bi nga xamante ne nii euh, benn collectif la maanaam benn mbootaay la boo xamante ni nii ay euh, ay ndaw ñoom ñoo fa nekk. Eh, nekk ñoo xamante ne nii tey lépp loo xam ne engagement la wala lépp loo xam ne jàpp nañ ne dund bu bu bu bu muccul ayib la dañu koy daal di xeex lépp rek ci intérêt sénégalais yi ñoom noonu lañu ko gisee. collectif boobee nag dafa yëgle woon benn mars benn mars euh, jamono jëlee ñu génn mars di benn euh, doxu ñaxtu boo xamante ni danañ fësal li leen naqari. daal di koy dox daal di koy ñaxtu ba fi mu war a yegg mu yegg fa ñooñee nag euh, ba ñu yëglee seen marche boobee ki nga xamante ne nii tey moo fi toogal njiitu réew mi euh, muy le préfet de Dakar da leen a bañaloon li ni mel moo waraloon mars boobee ñu annulé woon ko yemoon rek ci def benn conférence de presse woo taskatu xabaar yi ñu ñëw ñu wax leen li leen naqari wax leen aussi li nga xamante ne nii moom mooy euh, li waraloon ñu bëggoon a def mars. ba pare joxewaat beneen bës boo xam ne bu ñu fa yeggee danañ amal seen mars ci kaw ñu autoriser leen ko wala ñu ñàkk leen ko autoriser bës boobu nag mbokk yi moo moo moo yegg si tey euh, tey la jàppoon bës boo xamante ne nii bu leen préfet joxe ndigal danañu mars bu leen joxul ndigal danañu mars préfet la nekk ndax ndigal li nga xam ne moom moo ko yor di ko joxe ah, mujj leen koo jox ñoom waa collectif ñoo lànk li ni mel nag moom moo waral ñoom it ñu siisu ne danañ wàcc sur le terrain parce mars nekkatul loo xam ne dañuy ñaan autorisation mais dañuy yëgle rek ñoom fa ñu ko teg mooy ci constitution bi ci euh, Euh, constitution bi lañ ko teg parce que da cee am euh, benn benn benn euh, fànn boo xamante ne nii dafa xamle ne ñoom amuñu benn benn benn droit wala amuñu lenn loo xamante ne nii war nañu ko ñaan ci autorité bi nga xam ne moom moo yor réew mi ci lu jëm ci wàllu doxu ñaxtu li ñu mën rek mooy yëgal ko ko ngir mu mën leen a encadrer ba ñu mën a dox seenu ñaxtu ba mu jeex tàkk te amul benn gàllankoor bi dal seen kaw loole nag comme que gis nañ ne amut dañuy jàpp ne. dañoo salfaañe seeni i droit seen i ak seen i loolu moom moo waral euh, bu ñu gisee ñu am marche ba pare autorisé wuñu ko dañuy jàpp ni rek dañoo salfaañe seen i ak seen i ñoom nag dañoo wàccoon sur le terrain tey pour marche mais gis nañ ne ña ca nekkoon ñëpp pour l'instant jàpp nañ leen ba évacuer leen ñu ngi ci yenn ci commissariat yi commissariat bi ñu ci mën a jàpp rek mooy bu Grand Dakar bi nga xam ne pour l'instant huit membres collectif ñoo lànk ñu nga fa Euh, ba tey nag am na ci ñeneen ñoo xam ne nii ñu ngi leen fiy gis benn par benn te bokkuñu ci collectif bi mais dañuy liggéey en collégialité parce que boo waxee tey mouvement bu ci mel ni France Dégage wax mouvement bu ci mel ni Y'en ñoom ñëpp. boo xoolee menn yenn combat yi ñuy daje ñoom ñoo koy bokk muy ay combat yoo xamante nii ay combat démocratie la ay combat yoo xam ne nii xeex seen àq ak seen yelleef la ay combat yoo xamante ne nii bañ ku noot askan wi la combat yooyu dañ ciy retrouver wu moo waral tey ñu gis fi léegi gii Marius Sagna moom certes bokkul ci collectif ñoo lànk mais ñoo bokk ay principe ñoo bokk lenn li ñuy xeex euh, ñu jàpp ko moom jàpp yeneen i naataangoom gis nañ fi ñeneen ñoo xam ne aussi ci société civile bi lañ bokk mais ñu gis fi ñoo xam ne nii bokkuñu ci société civile bi bokkuñu ci benn benn collectif bokkuñu ci benn mouvement mais ay sénégalais lambda la ñu yor seen métier yor seen i liggéey sentir ne dund bi dafa seer ñu ne nañu wàcc sur le terrain mooy le cas de boobee nga xam ne gis nañ ko fii léegi donc mbokk yi en gros mën nañoo jàpp ne pour l'instant lii moom moo fi amagum.